Cheikh Mamadou Mountakha euh, gis nga sa kilifa. Hmm. loo ko mën a jox lu dul dégg ko. Hmm. dégg ko moo gën ci yow. dégg dégg. nga dégg ko fahmu ko. maanaam hmm. maanaam xam sëñ Mountakha dëgg-dëgg. gis naa ne daal. Euh, am na ñooñ sopp nañ ko. dégg nga ñu ngi koy déglu nii waaye nañ ko war a dégg dëgg des na. Euh, su fekkoon ne ñi ngi koy topp. Mm-hmm. te loolu mooy li jaadu ko am sa kilifa. Mm-hmm. muy kilifa goo xam ne. Mm-hmm. ñëpp a ko wekk. yàlla def muy kilifa gu mat kilifa. jaar fi mu jaar ci xam-xam. ci tarbiya. dégg nga ci xam àdduna. ci expérience. ci euh, jaaraat ci euh, way jur ya nga xam ne maanaam waxuma cëru boppam ak yaru boppam waaye dafa dafa dafa dafa dolliwaat dégg nga bu doon koo xam ne day laata muy nekk chauffeur nga ne apprenti wala lang wala xeet yooyu mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. dégg nga jaaraat ci uh, way jur ya danga ko seqoon ñoom ci ci ñoom ngërëm ba sët yi nga xam ne bi ñu ayee fi mu jaar ak ñoom njëkk a wanew yoon ci Cheikh Mamadou Lamine nga xam ne moo njëkk nekk euh, sët bu njëkk ci yoon wi mm-hmm. mu doxe ca doxin woo xam ne kenn mës sa doxe noona ci euh, jamono boobu eh. dégg nga ba ci Sëñ Sidi nga xam ne bindam la eh. euh, ku mel noonu nag dégg nga mbiram leere noonu eh. wolof dafa wax ne benn bëñ ku amul lu dul benn bëñ ndax mm-hmm. fonk te weex ah. Euh, Cheikh Mouhamadul Mountakha mi hmm. euh, jamono lum mu soppiku soppiku lu àdduna salfaañe salfaañe euh, wërta nëbbu mbaa mu muur mbaa fulul mukk ci koo xam ne ja jamono ba baax gën jafe yàlla may la ca nga am ka ca ña gën nga am ca ka gën baax hmm. ba ñeneen ñi gën baax sax nangul ko ngënee la mag mbaaxam ba di ko mm-hmm. seere su mbokk mm-hmm. turux yi ñépp a ko jox cër mm-hmm. xel nangu na xam-xam nangu jamono nangu aw meloom euh, mu bindoo ko ba agsi ci fii mu agsi ngir bëgg nit ñi xam li ko tax a jóg ak fim jëm dara dàqul nga am koo xam ne xam na fa mu jëm mhm. xam fam la jëmee mhm. waxtaanam bi mu njëkk a def ak jullit yi murid yi taalibe yi bokk yi mhm. bu fekkoon ne nit ñaa ngi topp am njàngaleem jafe-jafe yi ñu am ba koy xeexal seen bopp ba di ko fajee fajin wu juunu wi mën na leen mën na leen caa bañ a fekk te danañ am seenu bëgg maanaam juyoo ak sëñ Muntaxa day tee am sag bëgg mm. topp ci am njàngaleem ak déggal ko day tax jot ci la nga bëgg day tax a noppale it waaw ndax bu la ko kenn jàngal képp koo xam ne dem nga bay ñaaw ci moom njort defe ne dafa am lu muy war bëgg ci yëf yi bëggu intérêt mbaa Euh, wax yu ñàkk solo yooyu nga xam ne am nañu gàttu dégg ba seytaane jàpp leen ñu jàpp ne xëy na daa am ku muy faral te intérêt tax wala lu muy bëgg mbaa lu ñu koy jox boobu xalaat bu dëng ku ko yàlla nattoo wala nga gis ku gisee noona fexeel ba gaaw génn ca loola ndax loolu damay wax ni képp koo xam ne yaa ngi koy ñaawe njort xamee naa ci yow sa sa sa sa dëngug tànn yow ca la nga la ngay tànn mm-hmm. ndax ku ni mbiram leere dafa yombut mhm. bi muy toogit nag dafa wax lu leer daf ne bi ma jógee ndax ñaari mbir rek moo fi nekk mhm. suñu taxaw bu fekkee ne li nit ñi jort mhm. ñoo ko gën a def bu yeboon bu yeboonu bàyyi fi yoon wi bañ a jéblu ku jàpp ne ñun ñoo ko gën a xam àdduna <laughs> mbaa ñoo ko gën a yeew dañuy nax sañ bopp rek wala ñoo ko gën a informé wu su boobaa jërul mu di lu jiite. suñ bopp. moom wax nañu ci labiré bi muy door a toog. Hmm. discours bi mu njëkk a def. Hmm. daf ni bi ma suñ borom daf maa nattoo mënumaa gëm lu ma xamul. Hmm. lu may gëm lu ne damay xam lu mu doon loolu nattu la ci man. Euh, mu ne bi may soog a bi ma xàmmee li ma njëkk def mooy damaa dem jàngi àdduna. xam nga nee nañ sax bokkoon na ci parti. dama jàngi àdduna mm-hmm. waaye bi may jàng àdduna nag nee na dama ko jàngee sama jikkooy bopp bopp ak sama xelum bopp te mm-hmm. la nga gis kuy jàngi àdduna jànge ko ci dégginu keneen mbaa ñeneen far ca la di mm-hmm. dégg ah. kuy kuy wax wax di di nettali ay parcours am. waxi sëñ Mour man waxi sëñ Mountakha. dëgg la maanaam jotol gi balaa xam. Eh, boo gisee léeg-léeg nga gis muy wax di mépp di di ko kii day xool ba xam ni muy ronqi di xàcc di ñëwaat waaw li ko def mooy day xool ba xam attan nañ ko uh-huh. ndax jamono laaj na xàcc ba yàgg mu bàyyi da koy nal bu boobaa da koy nal jar ko jëliwaat waaw axa kay léeg-léeg mu kooj ko bañ bañ àttan ko mu door ko joxe waaw loolu koy waral <laughs> mu ne dafa jàngi bi mu jàngee àdduna da koy da ko jàng ak xelam mm-hmm. ak jikko mm-hmm. nee na waaye mu gis ne mm-hmm. dara amu fi solo lu dul njub ah. nee na mu mu mu dem ca mu xool ne njub nag njub gi ci gën mooy njubug yàlla hidaayatullah mm-hmm. nee na nag loola ma am ci taw te kat saa bu ne day buy wax fi muy jaar e, e, e, état bi mm-hmm. day day wane lam fa am mm-hmm. maanaam ku ne ku ku mas a taxaw di xalifa waxee noonu sa bopp ngir dimbale ko nit ñi mos am ci discours boobu ñu bari seetluwuñ ko eh, war naa dikkaat bu baax a baax a baax waaw war naa ñëwaat war naa ñëwaat mu ci la jàngalee boppam daan na itam ni ki noonu it ma ma bi ma ci nekkee nekk ci ba yàgg ci laa nag delluwaat nag jàngi sëñ Tuubaa ah. jàng sëñ bi mm-hmm. jàng ko ba ñëwuma ci kenn alhamdulilah waaw ah, ñëwuma kenn ci sëñ Tuubaa noonu la ko waxee mm-hmm. dégg nga nee na itam ma dellu gën a sóobu nee na comme léegi mm-hmm. diina ji fi ne euh, njàngalem diina dafa bari ay wuute nee na ma seet ca la gën a wér bi ma jógee ci diine. Hmm. dama ko gëstu gëstu bu xóot waaye li ma ci jublu woon xool ca la gën a wér ma jàpp ci. Hmm. Hmm. waaye ci biir diine dama caa fekk yaari yëf mooy charia ak xaqiqa. ci charia ak xaqiqa boobu nag déggin wa ma ci am dama ko jàngewaat ci sëñ bi daal di tudd sëñ Mor Sëy. sëñ Mor Fallou Sëy. ca tontu ba ko sëñ bi doon tontu. ba mu koy laaj bi ñuy laaj sëñ bi ana la ci lan nga nekk moom sëñ Tuubaa mu ne man de nekkuma ci lu dul ñaari laa fi charia. ak sharia ak xaqiqa ci laa nekk. Hmm. maa ngi ci yaari laa fi sharia ak xaqiqa. na nag bi ma koy jàng ci bi ma gis ne sharia leer na nañ. Hmm. mooy li alxuraan mooy alxuraan. Hmm. nee na xaqiqa mooy la des ca lawhil mahfuz te ñëwutoon. alxuraan moo ñëw jóge lawhil mahfuz am la fa des nag mu ne na mooy xaqiqa. nee loola it ma di ca dem di ca dem. waaye sëñ bi dafa dafa daf noo jàngal foofu ne. Mhm. daf ci am ñoo xam ne dañoo am seen jagleeg bopp nee na bàyyi leen fa yow te dem. Mhm. daal di tudd Cheikh Ibrahima ne na ca la bokk. Mhm. <laughs> wane googu nag mu mu mu wane waxtaan bu am solo la. le ca la wane itam bokki boppam yi ne ñoom nag bu dee sama bokki bopp yi boobu boobu mbooleem ku bokk ci sëñ Tuubaa bokk ci yoon wi won a la. mu ne bokki boppam yii. jàppewu leen mbokki kese waaye ay sang la leen jàppe hmm. nee na damay yees damay yeesal sama sëñ Tuubaa ci ñoom hmm. maanaam ñëpp ci sëñ Muntaxa lañ jëbbal mu wëlbatikuwaat moom yeesuwaat jëbbalu ci ñoom hmm. boobu jàngale xoolal la son boobu waaw am solo boobu boobu yëpp a ngi toog taalibe itam mu wax ne li muy wut moom ñoom ñoo àndandoo di ko wut di bi jàngalee dégg nga nit yi àdduna yii ak suñ mbokki suñ mbokki turux yi itam mu ne jox leen seen worma ak seen àq loolu dafa war moom dafa war ci moom. Mm-hmm. Mm-hmm. mun ci def comme tay kàttanam. Mm-hmm. mu ne nag suñ bokki àdduna yi nag maslaa laa séq ak ñoom. <laughs> ku nekk jox na la sa cër de. ku jox na la ci maslaa la accès fii mu <laughs> nekk la nga moom jox na la ko. waaw ah, ma jàpp nag ku mel noonu ku ko am. <laughs> c'est euh, mu xamee noonu àdduna. xamee noonu jamono. te waxoon la ne du bunta jàpp lum mu xamut. soo ko wóoloo jiital ko ci sa kanam ba noppi wëlbati ko jàpp ne. Hmm. yaa ko gën a xam àdduna hmm. wala yaa ko gën a xam jamono. Hmm. walla li li gaar li taxaw. ni nit ñi gise euh, doonte la ñëpp dañoo àndandoo la ëpp ca nit ñi dañoo ànd jëm gisee genn wet. benn gisiinam woow wi mu ëpp mucc ëpp itam ak mujj. ndax li ko def mooy xalaat yi nit ki di xalaat wala li mu am ci xam-xam. tëraleenu àdduna xalaat ci tey xalaat boo xam ne dafa mucc ci bakkan ak bànneex ak àdduna dafa jafe xalaat bu mucc ci intérêt dafa jafe ndax ku ci jaay euh, yërmande moo la ko ëpp foofu moo tax ju juyoog moom may wax ñu koy wattandiku lool te di ko dégg nga wax dégg dana tax a jot ci sa bëgg te euh, xëy na ci yërmandeem waaye nag lu rëy jaar na fi loo xam ne bu ko ndaw ñu tuubut mën na leen jural leneen. Mm-hmm. donte le ku bëri yërmande la du topp kenn. Mm-hmm. donte le fa sëñ yu nekkoon fa la nekk. su ma mm-hmm. leen jiitoo taxaw xaar leen. su ma leen négee ñëw leen ma fekk si leen. waaye nag nitu yàlla. mën na laa jéggal waaye martabaam. léeg-léeg moo dut baale. ca dañ ko def lu ko naqari nag. Mm-hmm. def ko tere lu mu tere. Mm-hmm. ñu def ko. Mm-hmm. te moo ne mënoon mënoon na koo faj fajum saa yaram. wër. ndax ña ña caméra yi ñu ngi fi. ña jiitu woon di wax am na ñu leen xam. kon jàpp naa ne. <coughs> buñ ko toppoon. teg ko ci biir mën naa mën naa metti léegi nag dégg nga wormaal ko ak wekk ko ak waggar ko mm-hmm. day lu jaadu moom ñaari mbir rek mooy mën a nekk mm-hmm. def ko ngir jariñu mm-hmm. ndax moom Tuubaa nit du fi nekk mukk di defub safaan màggataale ko moom déedéet mukk ci àdduna léegi nag dellu ginnaaw wéyut waaye fajiin wu ko mën a faj moom mi ngi fi te am na te bu ma sañoon kon mënees naa dellu ginnaaw bu baax a baax ah tuub ak rëccu rëccu rëccu tuub dellu ci lañ nekkoon waaw taalibe ga ndax am na ci ñooñ dañ leen a yóbbaale rek mm-hmm. ndax lu mën a xewit mm-hmm. li wér te wër mooy mooy koo ca xar xolam mm-hmm. da nga ci fekk Sëñ Tuubaa ci xamuñu li xew de man de wóor na ma ne xamuñu li xew xamuñu li xew ñàkkutin nag ni ñu ko waxee ñeneen ñoo xam ne rax nañ ca yëf ya waaye nag laata ñooñu di ci rax nag. Hmm. ñoom ndaw yi tuubaay yi. dañ leen a xew ñoo ko jiite dañu leen a diri ñu nangu. ndax hmm. euh, ña leen ña leen ña leen ña leen encadré. Hmm. def nañ ay réunion def déclaration wane ne dañuy def lu mel noonu ñooñu nag bañ bañ bañuy def loolu dañoo waroon nag. wax ak ñoom xam nga fii dañ jot sensibiliser nit ñi maanaam nit ki bu fekkee da nga koy woo ci ci ci yu mel noonu ci manifestation. da nga koy wax lii fu tàmbalee ak fu mu yem ak li muy mën a wattandiku salaahu salaam bu daan yeble ci xare. da daan yebe. day yabe yab yab mooy may nga dénk nit ki. bu leen dagg garab yi bu leen dagg garab. bu leen loolu jigéen ñi du euh, gaañ jigéen. ak màggat ak mm. gone. Mm. yooyu dafa jaadu ñu ñu defe ko defin boo xam ne man sax damay wax ne. waa mm. bu fekkoon ne euh, dañuy manifester ñu àndandoo. sol seen mbubb yu yiw. wextal jàngi xasida dégg nga àndandoo ba fees tëli bi dem ba buntu Mbàkke ñu taxaw kenn ñett ñu def ñetti discours kenn ki wax ci arab li ko naqari ci réew mi ak hmm. njiitu réew mi hmm. wala wala bu fekkee ne ci opposition bee ko tax di wax mu wax mu wax loola hmm. wax li ko naqari ci tubaa su ko su noppee keneen ñëw wax ko ci français keneen ñëw wax ko ci wolof ñu noppi daal di jàng seen rabbi bi ma yasraw akub sindiidi dellu daal di ñaan dem euh, maanaam loolu lu mu mun am njàngale la mu rëy ci réew mi moo xam ne te message bi day jàll su booba message bi jàll parce que communication bi moo am importance message bi ñuy lancé mooy image bi lañ bëgg a jox ñenn ñi nga xam mooy communauté internationale bi ñu xam li xew Sénégal lan la li xew Sénégal la boo dajaloo wax li nga bëgg wax ñu ñu jot ci te loolu rek mooy solo si ah. <laughs> li li li li li sëñ Moxtaar doon wax mbokk mi doon woote ci ci ci wàllu sécurité waaw waa man gis ne su mbokki Baay Faal yi hmm. bu ñu leen dooleeloon nit ki nga xamee ne sëñ bi moom dogu na ci jox leen lim leen jox te man nañ ko hmm. xëy na yar ak teggi nag wattandiku moo tax yu baree bari hmm. eh, ak ñàkk li xew ci yëf yi mooy diabolisation bi ci am ak yu mel noonu waaye fi ne yoon moom eh, dégg naa sax mbokk mi wax na ko sànq bari nañu koy wax maanaa civil du yar morom ma ci kaw bu fekkee ne civil bi dañ ko joxut dañ ko dañ koo légali dañoo dañ ko tegul ci lu waa daal la bëgg a wax. Mm, mm. police su. Mm. police municipale bi ñi ñi fi Macky Sall kii woon. police boobu. Mm-hmm. nuñ ko tuddee woonati. ASP ASP yi. amuñu woon. ASP yi. Mm-hmm. maanaam décret la rek bu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu bu ñu joxe. Mm-hmm. ñu ñu am euh, ñu sañ a def li ñuy def. amuñu woon dañ leen dañ leen amal. dañ leen amal rek ñu am amal rek ñu am waaw. yoon moom li mu yoonal rek loolaa yoon. léegi nag suñ leen ko defoon ñoom ñii. dana tax lépp luñ defati ñu nangu ne hmm. dégg nga ci luwaa bi la tege dëgg la euh, diggante Mbàkke ak Touba gi bëggoon naa waaye comme waxtu bi dafa xat waxtu daa jeex dafa mel ne ah, waaw <laughs> ñu may def Mbàkke moom bëggoon naa ñu fexe ba <laughs> euh. dégg nga mu bañ a parce que dafa bokk ci sécurité booy ñàkk hmm. maanaa boo bañee euh, safara agsi ci yow hmm. la ko wër da nga koy ñàkk da nga koy ñàkkaale Mbàkke ci xoddiku gi la war a bokk